ku nekk yëpp di leen ziar di dalal suñu président Issa Dieng ak délégation bu mu ànd yëpp fekk si tey nekk deuxième ministre national ñu wax ànd liggéeykat yi nag ànd dooleel liggéeykat yi li tax ñu war a jàppale mooy ñun liggéeykat yi dañu nekk ay coono ba ci dem boo jaay bi ñu demee campagne amul atelier bu ñu dem ba fekk tailleur bi liggéey amul salon de coiffure bu ñu dem ba fekk borom salon ba rek ñoo ko mën a xeexal suñu bopp parce que ñoo koy dund au jour le jour ñun ñu koy dund nag au jour le jour ñoo ko mën a xeexal suñu bopp kon boole leen ak dooleel liggéeykat yi ngir suñu yee jot suñu yellee loolu daal la leen di ñaan ngeen artisan yëpp ngeen jàpp ci ëllëg ñu mën a xeex ba blouse yi dellu si waat ci loxo tailleur yi marché public bi dellu si waat ci artisan yi loolu daal lañu amoon ay kàddu yu yëkkati ngeen góorgóorlu seen biir bopp la képp koo xam ne yaay liggéey fay sa bopp rek gis bi mooy service amul daray politique li ci nekk yëpp président Issa moo jël dooleel ak kattanam ndax yàgg yóbbante ci assemblée te yóbbante bu egg bu bëgg ñu am représentation ci assemblée nationale kon nag dañuy artisan yëpp di jàpp population bi yëpp nañ ci jàpp woteel ànd dooleel liggéeykat yi merci beaucoup. salaamaaleykum ah ma ànd ma ne liggéeykat yi tey ñu ngi recevoir nag suñu président Assane yi honorable di ko dalal ak jàmm gannaaw bu ñu ko waxee ñu ko rek dalal ak di laaj ñëpp nag seen baat di kontaan ci moom ci joxoñ bii mu ñu joxoñ am ci ñu confiance kon ñu ngi tàllal ñëpp suñu seen loxo pour laaj leen seen baat pour ñu mën a am ñu ñuy toogal ca peccum ndawam réew mi. diñ ko waxal suñuy doole am ndax ñoom kat ñoo xam suñuy màtt la ndax Issa Dieye nii moo dëgg ñun xam kuy nekk si ñun bu ëllëgee mooy a taxaw mu bi artisanat bi xam ne cent vingt huit code métier la kii jaay gerte caaf sax si ñun la bokk kon nag war nañ ci ñëpp bàyyi ñu kenn kuy góorgóorlu rek di sa bopp te yaakaar sa ñàkk Issa Dieye boole na jóobu njaayam ba taxaw ni day jàppale artisan loolu dara gënu ko ne te ñun moom nii ëppul kenn passé ñu ndax mooy président des unions des chambres de métiers yi ci Sénégal yëpp kon tey amuñu ku ko ëpp quoi nañ leen góorgóorlu ñu jàppale ko ba mu taxawal ñu ensemble mën ñu waxal suñuy doléances wala salaam wa